ñu naan avancé amul reculer malaaka yi day toppi seen kaw di taxañ suuf lu ñu passé rek ñu taxañ ko boo delloo ginnaaw foo jëm suuf amatu fi ah ba ñaa si ci buntu pom bi gaare yéefari gestu rahmaani fekk tàggoo naa ñoom ca bàmmeel ya réy mu jël fonction du ko jullit yi ku ne mu jox la torse torse bi liimaan samara siraat pom la bu ñuy jaar dem àjjana yàlla dafa fab àjjana làq ko ci ginnaaw siraat su fekkoon buñ dekkee àjjana la ñuy jëkk a jot daa gis li yàlla yi mën a mën a wattu ku ne poset na ca parax te kenn du ci man dara waaye xam nga ni mu def dafa fab àjjana sànni ca gannaaw fab safara def ci sunu kanam ci lu ñu jëkk a jaar mu jaare ci pom bi nag ne yéeg leen ci pom bi dem ci kër yële pom baa ngi sewee ni njarwañ mu ngi ñuule ni oxset moo gën a ñëw jaasi hind moo gën a yëngu jaan ju ñu gaañ te deegul bu su tànkee ricce ngay dem safara wa inna minkum illaa waariduhaa kaana alaa rabbika hatman maqdiyyan summa nunajji llaziina taqaw wa nuzulu saalimiina fiihaa jusiyya foofu nag fa la réew mi di accueillir rek ay ganam muy jullit yi kenn kenn ñu jox la torse jël yéefar jox julli texte jël yéefar jox julli texte neen en avant avancé leen ñu avancé yéefar yi nag tax taxaw fa moom la yàlla nettali nag yasaa nooruhum bayna aydihim wa bi aymanihim yaqulu alladina fa duriba baynahum bi suurin lahu baabun baatinuhu fi rahma wa saayiruhu min qibal ñu daal di installé benn miir doxale ko diggante jullit ak yéefar yi nga ne biir miir ba féeteeg jullit yi yërmande ya fa nekk biti ba ay karwaasa fi nekk jullit yi xaar leen nu naqate bis ñu niitu mi nuurikum ci seen torse yi waaye xaar leen nu waay ñoom Yuusuf di wax loolu ñoom Moussa ak in Ibrahima ñoo dëkkoon ñoo taxawoon kër am mu am martaba bi nga amee doom mu am doom mu defe ne yéen a yem martaba alam nakun maakum noo dëkkoon bu leen dem bàyyi ne unsiroona xaar leen nu naqte bis ñu niitu mi nuurikum foofa nag la ay tàndarma génn yooyoon la war ay leraw ne leen irjon wara reculer del leen gannaaw fol tamit soo ngeen uti nooron ton fu duri ba ñu doxale bay noom seen diggante bi suurin ci miir baatinuhu fi rahma wa saayiru min qibali xaram da ngeen di dem banu fii da ngeen di dem banu fii xanaa du noo dëkkoon noo bokkoon si kaab noo bokkoon noo bokkoon noo bokkoon pénc waaye noo bokkoon bureau waaye bul dem nga ne ko bàllee aha kañ li nga wax dëgg la walakin tum wa xarakum ayaatu dunya fal yawma laa yuuxasu minkum fidyatun wala min allaziina kafaru allahu akbar allahu akbar yooyu yooyu noo di kon waaye waaye da ngeen trompé dafa amoon lu leen trompé buñ daan dem ci yàlla ngeen dem ci caaxaan seen bakkan yi nax leen dundu àddina nax leen ba ñu teer tey tey jii du ngeen ànd ak ñun du ngeen nu topp yéen seen wendukaay mooy jaanama fa ngeen jëm fin boobu xaat yàlla nettali ku yàlla may xel nga bokk ci jullit yi di yëngatu ci wàllam di yëngatu ci rasulilaay te ne bi kat martabaam kenn mënu koo xam ku dul yàlla gisal li ngeen di dégg course yi xam mooy lan kursi mooy moo di bayaalu àjjana arche mooy toiture bi yënga njool màkk guddi gi ñaan gi téere yëpp d'accord nañ ne ñaari tànkam yi mu ngi ko teg ci tibi ni arche bu amoon tibi bëtt na asamaan juróom-ñaar bëtt ajjana bëtt kursi bëtt aras ba ñaari tànk ya mu ngi ko fu ñu ko mujjee gis daal mu ngi ko teg cokk bu amoon tili kooku sori na kooku ku ko tàntal yoro yàlla mën na laa defal li nga bëgg defal ko koo wallu si ku mu doon rawatina ngeen tàntal ko ci guddi gi wax naa leen ba tàyyi ne fu bopp bi gën a lëndame faradaay gi gën a tàkki ci guddi tey gi lu defal lu waay yàlla defal lu waay lu waay defal yàlla lu mu néew néew am ci tiyaabo ndax guddi la boo xam ne gii guddi seytaane la di guddi iblis di guddi di guddi di guddi ñu yiwul ñi ñu yàlla naragul ci ñoom yiw xëy na ca kanam mu dabaatal leen yàlla na ko def te bàyyi noog li nu nekk bi jaay rasulillahi am na seen soxna su baax sabli yu ne ne dama toog ci géewu ci ci géewu misra busra gis benn niiw ñu di ko yóbbu ñeent rek enu ko kenn topp ci loolu genn na koy di jooy ma ne niiw bi de ni mu tumurànke dinaa ci uti yool àndandoog niiw ba ak ña ko yenu ba ñu àgg mu ne waaw kenn du ko julli ñu ne ko ah ñun de dañ ñu sant rek yen ay mënee bër mu ne ma walanteeru jullee ko ngir yàlla ñu suul ko mu ne leen taxaw leen ma laaj leen dëkk bii ni mu réy néew am fi kenn topp ci lu dul ay ne bëri waaw kii fu mu dëkk ñu ne ko xam soxna seenu fay na nañ ko ko enul mu gis soxna si tàllal loxoom mu oo ko soxna si te ko wuyu tàllal loxoom ba mu yàgg mu ree mu ne ko yaay bu fi jóg te waxuma say mbir mu ne ko xale bi maa ko jur amul lu yàlla tere lu mu deful yàlla mu soo tantaane dara lu mu def ñetti fan la feebar nag dee waaye ci deuxième suuram la ma oo ne ma yaay bu dëkk bi yëg mukk na dee naa dañuy bég ndax càncaay gi ma nekk woon nëbb ma bu ma kenn yëg su ma dee nag luñ ma gaaw gaaw yow bu dëggal ci sama kaabaab gi bu ma ñeebul yaa ma jur waaye ne ma niit na jàkk yàlla ne ko lay payu ku la moy suma baaraam bii jaaru bi ci ne laxasal ma ci laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah ñu suulaale ma ko sallallahu alayhi wa sallam góor soxna sene ma def li ma xale bi sant ba mu dee ba ma doggali ko ma dëgg ci kabaab bi ni niij ba kowe na yàlla lay payu ku la mooy fab laay laay la laa laxasal ko ca jaaroom ba ca baaraam sànqalañ ba sew ba mu ne ko nag buñ ma suulee neel yàlla maa ko jur te gërëm naa ko yàlla nga ko gërëm mu ne bi mu ne li ma santoon yëpp ma def ko bi ma tàllee sama loxo nag na yàlla sama ndoom la maa ko gërëm naa ko yàlla nga ko gërëm laa dégg ku mooy oote ci asamaan yi juróom-ñaar ne jé jéggal nañu nguur si jéggal ay ñaawteef gërëm ko ni nga ko gërëmee moom a taxaree nga gis Muhammadu Rasulullah ni mu amee doole ci kooku yonent yàlla Muusaa jamonoom am na ku ku saay-saay ku fan ku fanam gudd ku bari wërsëg ku mosula def dara lu neex yàlla ba dee jot mu dee ñootat ko sànni ne kenn du ko suul suuf suñ ko suul ku fa béy dootul baax yàlla yónni ci Moussa ne ko néew bële ñëwatat sànni àndal ak ay notable saxsiyatul islamiya ñu am bu baax wàll ci lislaam ngeen defar ko suul ko mu suul ko ñëw yàlla mu ne yàlla waa ji day dañu wax lool ak càncaay mu ne ko dara umpuma ci wànde dañu mosu ubbi tawreet mu di ko xool gis ci turi Mohamed laal ci baaraamam laal ci bakkanam ca laa ko mayel ajjana ak juróom-ñaar fukk yu mu war a ram ku bokk ci Israël gëmul Mohamed bokkul ci xeet wi laal turam rek mu yóbbee ko teraanga jooju juróom-ñaar fukki nit marché ku bokk ci xeet wi gëm ko sopp ko yàq say nelaw génne sa tuut def ko ca kooku àjjana rek la jëm ginnaaw loolu nag seen mbooloo mi dara terewu ko dara terewu ko tas lu rafet jikko rafet jikko rek rafet jikko ci la nit di doyloo moroom ma baantan ko jox kopparam jox ko gannaaw rafet jikko ci la nit doyoo xelam moroom ma ba lu mu ko wax mu ànd ca te rafet jikko am na solo yonente bi nee na yunaalul marx min usni xulqihi ma la yanaalul xaabidu assaimu wa siyaada wa siyaada rek may jooyloo nee na rafet jikko dina may nit ca yàlla loo xam ne kuy fa ne julli guddi gu ne di indoo or doo ko am ak lu ëpp ak lu ko ëpp Moussa mos naa wax ak yàlla ne ko firawna de ñeent ñeenti téeméer at a ngi mu dee tooñ naan ana rabbukumul a'laa ñeenti téeméer at nga di ko seetaan rek mu ne ko ñaari yëf la jikko moo tax ku rafet jikko la li muy saay saay yëpp ku rafet jikko la ginnaaw loolu it buur bu neex a gis la daawul tëju yom ba gis googu ak rafet jikko gi ci laa ko muñale ñeenti téeméer yooyu ngir feye ko yiw woowu ci àddina balaa dem àlaaxira nga xam ne su fekkee ne Firawna ak càncaayam gu réy googu rafet jikko tax yàlla di ko muñal quatre cent ans ak yomb a gis nag yomb a gis dinaa di wax gaa yi naqare gis yàlla rek la jik ku fi tëju ci ruq ba mu ruqoo ruq ku ñëw ñu ne nekk fekk dafa génn billaay buñ la fa bàyyi daa mos a wax ne woo ñëw leen wéet yàlla rek la jik dëgg-dëgg tooñ yi bari na waaye moyen yi yaatu na subhaana rabbil a'la bi ngeen di wax dafa naa bu ngeen sujjóotee ngeen koy wax am déet su ngeen rukkooyee lu ngeen di wax subhaana rabbi azima bi am bi jamono boo toxoo ci martaba gën a jegeñ yàlla toxu toxu sa wax toxu yàlla ne yéen ñëpp di ngeen jox si par kenn par kenn ak kenn wala di ngeen jox seeg loxo yi neen jabar du ci topp doom du ci topp alal du ci topp daraja du ci topp yow kenn doo ngay ñëw ni nga fi déparé woon ni nga fi déparé woon yow kenn ni laay ba nga jox si yow kenn kon nu góorgóorlu di bañ a tànqam lu oote yàlla yi tey daw lu ñu man tereem yi suñ borom ne na kat dinaa xam jaam bu ma ormaal bu ma yërloo fu ma santaane seen ko fa bu ma yërloo fu ma tere du ma ko fa seen dinaa xam jaam bu ma ormaalu li itam fu ma tere bu ma gestoo seen ko fa fu ma santaane du ma ko fa gis yàlla musal ci loolu musal leen ci musal ci jullit yépp bi ormati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam jibril asrail moo jëkk wax subhaana rabbil a'la gis nga aqrabu ma yakunu abdan li mawlaahu alata kawnihi saajidan ku gën a torox lu gën a jege yàlla ku gën a torox lu gën a jege yàlla nee nañu ki gën a gën a jege yàlla ci jaam yi mooy ki fab jéem teg ci suuf sampi tànkam toggukaayam jëm kaw fi la torox lu mën a yem moo tax ne bi daana wax ne su ngeen rukkooyee na ngeen màggal yàlla bu ngeen sujjootee ñaan leen seen soxla lu la jafe ngay def boo sujjootee ñaan ko yàlla lee nga am na te itam du yàq julli julli naafila du ko yàq du yàq gu farata sañ nga sujjoot ñaan sa soxlay àddina sañ nga sujjoot ñaan sa soxlay àllaaxira sañ nga sujjoot ñaanal nit ñaanal sa bopp sañ nga ko wax ci olof ak arab te du yàq sa julli no bi daana wax ne seen farlu bu ngeen sujjootee ci seen aajo ki ki rukkoon yi toroxlu na waaye defe na moo tax bi mu rukkoon yi martaba ngi yem ci subaana subaana rabbil asim ci la yem subaana rabbil asim fi la mën a yem waaye bi mu rotee nag sens position gën a jegeñ yàlla la sens sikkat na subaana rabbil ahla asrayi la ko jëkk wax moo ne yàlla dama bëggoon nga won ma sa màggug nguur gi ak yaatuwaay bi suñ borom jox ko juróomi téeméeri moteur maanaam ay laaf laaf bu mu ci tàllal génn juróomi téeméeri at bu ko bankee noonu mu naaw juróomi téeméeri junne at laaf yi lakk ci leer at mu mel ni moteur bu paan mu xalaw li ko jëm suuf suñ borom ne ko ma dolliwaat la laaf yi toll ni yema la joxoon mu joxaat ko laaf yi toll ni yema ko joxoon juróomi téeméeri junne laa waxoon bi yoon fukki junne at la naaw mujjee mel ni piccam ramatu laaf ya wecceeku dana ba deñ desewul ndiwu mu daanu ci suuf ne subhaana rabbi laxla wa naxla gi góor a màgg nguur te yaayi yëf te bari doole kattan suñ borom ne ko bu ma la joxoon kattan goo pëggi woon nga naawaat loppa loolu doo jot genn wàllaati genn wàllaati sama nguur waaye baat boobu dinaa ko jox sama xarit bu ñuy wax Mohamed mu jox ko waa këram benn subhaana rabbi laxlaa boo wax bu mu doon nabi ne na poids ma gën a diis arasa kursi bu àllaaxira ci sa poids benn bi poids ma gën a diis arasa kursi bu àllaaxira te boo dee bés bu ne Israël dina la nuyu si sa bàmmeel fukki yoon ba ba ngay bés pencee taxaw bu àllaaxira moo lay dogale tóngóob la sëppale ci kanami yàlla baat bi ne ko yàlla rammul ma jaam bi mu ne ko su ma ko namul woon a ramm du ma ko wax baat boobule kon baat bu am solo la yàlla dogal kenn ka dee mu des ñaari gaay wóoluwu ñoo dëkk kii dëkk fii kii dëkk fële waaye ku ci jóge sa dëkk morom booy nuyoog moom waa da ngay jëkkalaat ana fiw mu nga fa ndax dara jotu ko actualité àlaxira na mi daan toog ba mu yàgg rek mu muuñ buñ ko laajee loolu muuñ mu ne suma borom a gaaral ay jëmm yu ne ca kanamam di layoo aliñ bara pay mu nga leen suma xarit la gis naa ko kon naan morom ma yàlla nga gudd yàlla nga gudd fan ndax xam nañ ne waxi ne bi ji du toxu te ki ci mujjee dee safara la jëm su ay ru ne na ñëw naa toog di nuyoog ne bi bàyyi sama papa di préparé na ma foo jëm mu ne ko ci Mohamed mu ne ko dooma raw maa ngi topp sa kaw ne bi daal di jékki-jékki ree ne kii jëkk a yokku ci nun safara la jëm mu ne maa ngi tiite tiite tiite tiit be ndax li ma bàyyi sama papa pare fu la ma defa gestu fu la ma defa gestu tuuti as beneen jëmm na jaleñ ma door a nokki yonente bi nee na dañ ko gaaral ñaari gaay yi ñuy sujet ne leen jaanama ngeen jëm kenn ki ne bëxër ñett jëm jaanama di taw xël yu metti sun borom ne oo leen ko mu taxaw mu ne ko foo jëm mu ne ko dafa mel ni da nga ne ñu dem jaanama mu ne ko waaw mu ne ko fa laa jëm mu ne ko waaw sa xël yeeg sa yàkkamti gi lu ko waral mu ne ko yéex a nangu sa santaane ci àddina moo ma yóbbee ceen ci àllaaxira ma bañ mu dalaat ma dama daan dama daan tànkam lu sa santaane dama daan tànkam lu sa santaane say santaane ci àddina moo ma yóbbe gàcc gii ma bañ mu dalal ma fii moo tax bi nga ne safara rek ma daw jëm ci ak li mu métti yëpp yàlla na ko baal naa la demal àjjana benn waa ji moom na yegg ci taxaw rek yàlla na ko xanaa dégguloo li ma wax mu ne ko ah kañ da nga ne ñu dem safara mu ne ko loolu taxaw nag mu ne ko dama dégg ne ku bëri yërmande nga ma defe na balaa jeex ma mos ci mu ne ko demal àjjana ñoom ñaar ñëpp ñu dem àjjana kii dafay jëfandikoo ragal kii jëfandikoo yaakaar yàlla du tas yaakaari ku ko yaakaar mukk mukk jomba naa tas yaakaari ku ko yaakaar dinaa leen sorxale sax foofu lu tuuti balaa sëriñ bi jël ngeen dimmandikoo ko hadiisu qudsi Muhammad dafa wax ne jaam bu mu doon bu di jullit mu yor njàpp njàpp ma firéeku te jugul ca saa si jàppi manqué na yàlla jaam bu mu doon ci jullit yi mu yor njàpp njàpp ma firéeku mu yeesal ko te julliwul ñaari rakk manqué na yàlla jaam bu mu doon ci jaam yi njàppam firéeku mu yeesal ko julli ñaari rakk te julliwul ci Muhammad manqué na yàlla jaam bu mu mën a doon njàppam toj mu yeesal ko julli ñaari rakk julli ci Muhammad te waxuma soxlaam manqué na ma jaam bu mu mën a doon njàppam toj mu yeesal ko julli ñaar rakk julli ci Muhammad wax ma soxlaam te fajuma ko manqué naa ko te jomb naa manqué sama jàpp Abdullah ibn Omar moo nettali ne toog naa ko Rasulullah ba mu yàgg mu ne kii jëkk ñëw ci mbooloo mi ku bëgg a gis ko dëkk àjjana xool ko àjjana la jëm ne ma toog tuuti génn góor gu ñuy wax Omar ibn As ak ci kii baa ngee toog ak njàpp mu bees ñun ñëpp ñu xoolante xoolante xool ko waaye kenn waxu ko li ne bi wax ñu waxtaan ba tas ñu toog ba am deux mois ñu dafa géew lëgg neeti kii jëkk ak si àjjana la jëm mu ñëwaat di góor gi ñu xool ko ba te ñeewaay keloo ko ñu toog ba am ñi lu mat juróom benn weer ñu toogaat di waxtaan ne dina kii jëkk yokk ci ñun àjjana la jëm mu ñëwaat di góor gi ne bii yoon ma ne góor gi daal dinaa ko topp ba xam li muy def ma roy ko ñu xaar ba mbooloo mi tas mu dab ko ne ko papa suma baay de dañuy jote ma giñ ci màggul yàlla ne ko dinaa geraw sa kër ñetti fan ma bëggoon nga làq ma ñetti fan mu ne ko maa la jur ni nga ko jure arab na dañu fooñu dañu fooroo ngiñ comme giñ nga ko nag te da ngay bañ a teeñu kaay doom góor ga di ko fanaanoo waaye gos bi ne na gis naa bu safaak eetar moom góor gi bu ko see safaa ba wettri ba tëdd nelaw dootul jóg mukk lu dul faja bu fa jaree mu jóg julli jël sa noonu ca ginnaaw la sonu ma ne kii kat tanewu ma kat man day lii laa nekk nekk nee na lenn di nemmeeku naa ko xam naa ne wa boor ba mu tëdd ba tàyyi buy wëlbati ko foog mu tëdd yàlla su tëddee góos ba tàyyi buy wëlbati ko foog mu tëddee foog mu tëddaatu yàlla li ne bi doon wax naan ku bëgg a gudd fan ñetti yëf dee ko def boo tëddee layal sa loxol day joor del faral di lekk papayo te bu mu doon bu ñor toog ñetteel bi su dara la suñu takk takkal jànq baal leen ma de baal leen ma baal leen ma yeneen bi ko wax rek ma doon ko nettali ba ñetti fan yi mag ma ne ko papa maa ngi ñibbi ñette wu ma woon ak sama papa dara ne bi waxoon ci yow sa kër rek ñemeñ naa ko wax tey ndax dundatul dañuy toog mu ne kii jëkk ñëw àjjana la jëm nga mu ñëw di yow ñu amaat ay weer mu waxaat ko mu ñëw di yow ñu amaat ay weer waxaat ko mu ñëw di yow maanaam dinaa la sàcc bu ma fanaane yow looy def bu ma demee di ko def waaye li ma gis ngay def kat man ci laa ne sa baag la sa dina law ba fajar mu ne ko ma de doom boobu laa yokk ma ci dara xale ba tàggoog moom dem ba ci buntu ba mu joowal ko ne ko ah kaay doom fàttaliku naa la fi mu ne ko lan la mu ne ko ba ma juddoo gi léegi musuma gis kenn ko am teraanga ma añaane ko ko mu ne ko loolu ci nga amee martaba bi kon kañaan baaxul li muy bon bon nag rambaaje ko gën a bon rambaaj yàlla ñu ci yàlla musa lu yàqu rambaaj ko yàq dafa am benn waay buy jaay jaam jaam nag jaam boo koy jaay nag da ngay wax ayib jóg mu ñëw di ko jaay di ko jaay jaam gi nag am ngàdda la mu ne liggéey waaye rambaaj la fu mu dem ne ku waxaale ba noppi mu ne ko attention nangu nan nangu nan digal la waaye ab rambaaj la de boo dem ci benn waaye waa jëne ko kooku salfeer yi jënd ko moom fa weer ñëw oo jabari patron bi ne ko yëg nga ni sa jëkkër day bëgg a takk jabar mu ngay def nag ba ngoro gi tas mooy da ngay xaar ba mu nelaw nga utal ma tuuti kawar ci sikkim bi bu ma la ko liggéeyee ngoro gi tas ndaw si préparé mu dem ca jëkkër ji ne ko yëg nga ne sa jëkkër sa jabar waxante naa ko far ba da lay reyu sa yicca soo ko dee na nga nelaw nelaw rek seet góor gi tëdd mel ni ku nelaw ndaw si yoot ak taakaam yow taag paakaam ba tiim ko góor gën a ca loxo ba tibit na ko petar cap na ko fàppare bàyyi ndaw sa ñëw ak tamit nga rey waaja bokki ndaw bokki waaja ñëw rey waaja mu nekk ger boo xam ne réew ñëpp ca lañu dee ci rambaaj bu bon boobu le yàlla yàlla musul ci rambaaj
قد علم ربي الله ونافذ حاكم فينا إرادته سيد الآج مالك لنا ونافذ حاكم فينا إرادته كما يشاء وجل الله يالله لنا وسامح الوالدين وسيوق وما قد ولدوا وسوي الإسلام يالله صل صلاة تنجنا بها أبدا جميع أهوال والأوقات يالله صل صلاة بها تقبلنا أبدا جميع حاجاتنا يا الله يا الله صل صلاة بها ربي تطهرنا من جملة الصيحات ربي الله صل صلاة بها ربي ترفعهن أعلى من درجات ربي الله يا يا كل صلاة بعربي تبلغنا أجل أقصى من القايات يا الله تقي الأجمال مننا يا الله يا ربي في الخيرات جملتها عند الممات وبعد الفوت يا الله بلغ إلى شاف الآلي أمانتنا صلتنا ما تسلم يا الله تقي الأجمال مننا صل وسلم على الهادي الصميم كما ترضى ويرضى يا رحمن يا الله صل وسلم على نور المحيط على كل المكون كنز الخلق يا الله صل على رحمتك دائم سيدنا روح الوجود والسر ذات يا الله على المقاتب واسجد وقريب كرما صل وسلم سلاما ربي يا الله صل على لوحك المحفوظ لاشرف من كل القلائق يا رحمن يا الله تبغى من تقول له مبالغا يا ملو إيسان يا الله سيد الأجمال لنا لا تحرمن إلهي يوم رؤيته فلا يخيبن من يرجوك يا الله من لم يكن يلقه قدا ينا وجلا هذا كثير أتى لجبريل الله وكن لنا ربي في كل أمور فمن يكن كذلك يلقى يسر يا الله صلي صلاة بها ربي تحللنا قلبي ربنا يا الله يا الله تحصيل حاج مالنين صلي صلاة وتسليما سرايتا على الأبيب وحال الحب يا الله صلي على البدر ما هم الأجيج إلا سيارة ريح الرحمن يا الله فجل إلهية يا ربي قصيدتنا وسيلة للمنى يا الله يا الله أهوذ بالله من قاف الأنام ومن ردا عن النفس عن رزق يا الله وردني بالقضاء ربي مصبرني ألا بلايك يا رحمن يا الله يا يا سيد الآل مالك وردني بالقضاء ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله مسيئني سكر ما أوليتني نعما يلتناك يا رحمن يا الله لا أعطين ثناء عليك أنت كما ربي على نفسي قد أثنيت يا الله ما يغفر لنا ولمن من ديننا نسب من جئة دين أو في دين يا الله صل على ساجد قبل ورفع على بسبعمائة عام ربي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمنا بنا إله وخلق المشعر الله من لا إله إلا هو خلق المشعر الله من لا إله إلا هو خلق المشعر الله